wallaahi dëgg tubaab yi ñu ngi dégg jëkk dajeeg maam Thierno Birahim en effet un détachement de cent cinquante tirailleurs et de cinquante espions déposant cent cartouches par homme soit vingt mille balles et mis sur pied il pourra éventuellement recevoir l'appui des partisans des chefs indigènes de tous actes qui aux colonisateurs les frontières avec la Gambie sont fermées maanaam dañoo tëj frontières yi bañ la nga xamante ne euh, Sayer Mati defoon na ko dem ba Banjul foog nañ ni sëñ bi koy daw la ñu ñu gaw frontière yi waaye li doy rek li leen gën a jaaxal mooy dañoo dajeeg maam Thierno ne ko tey ñaari ordre lañu amoon sëriñ bu ñuy wax paate ab pël la moom lañu amoon ordre pour jàpp ko ak Cheikh mat Bamba paate nag jàpp nañ ko ba takk ko fodon ko dénk ko benn chef de canton bu ñuy wax Yamar Mbodj sa mag ñu dese muy Cheikhul Khadim maam Thierno ne leen dem leen bis bu ngeen gisee ak Ahmadou sama mag ja di ngeen xam ne paate du Ahmadou Ahmadou du paate. du paate li doy waar mooy sëñ Amidun bu par parloo amul bañ ku la mere amul tund jeewal waroon nañ koo jàngale ci école yi. waaw kenn ku man ñëpp keroog lañ ko gis. parce que tubaab yi affaire dafa yomboon ci ñoom. match bi match bi moo yomboon ci ñoom ñu foog ni dañuy ñëw gañe ko waaye séenuñu bal bi. di jëli ku leen jébbal parce que problème bi mooy dañ ne ordre bi nu jot mooy SPI si nañ dem taal Mbàkke Baari parce que xam nañ ni booba benn tubaab bu ñuy wax Patrick Leonardo dem na ba SPI si xool jeew xool kër gu mag euh, Mbàkke Baari ni murid yi gëmee sëñ Tuubaa ndax sëñ mën dumbee nga fa. Cheikh Issa jën na nga fa. ñu ne taalibe yi gëm nañ ko gëm goo xam ni tey bu taaloon kàmbuk sawara ne leen dugg leen ci ñee ma fa gis dinañ ci dugg sans hésiter kon na mel ni ab union lañuy ñuy xeexal yi sëriñ bi yëg na nit ñoom dañuy ñëw mu ne naa dajeeg ñoom ci àll bi bu ma kenn topp am na mag ñu dem. tudd nga ko léegi sëriñ ma bañ ji xanaa xamoo li xew ci jeewal ma wax la ko bi nu jógee Mbàkke Baari di jëm jeewal mi ngi nii bi ñu jógee Mbàkke Baari di jëm jeewal mm-hmm. sëñ Basiiru Saar nee na Seex Ibra Saar Njaañ mm-hmm. daa gis ñaari giléem yu nekk ci biir àll bi di roofante ay bopp bu bii dóoree bii boppam bii dóor bii bopp ñuy yuuxu bu bii yuuxoo ba yàgg bii yuuxu Seex Ibra Saar Njaañ dab sëñ Tuubaa sëñ bi nag boo mësaan a bëgg a def dara da koy xam mu ne ko Ibra Sarr Njaañ ana lu mu doon booba mi ngi yenu mu ne ko Mbàkke giléem yee laa dégg lu muy wax xam nga ni kooku kuy doon patron doo ku ndaw giléem yi laa dégg la giléem laa dégg nuy wax xam nga sëñ Musaa Ka nee na moom day waxat lu yàlla sàkk jàngalu laahi te bul ko sikk mu ne ko Ibra Sarr lu giléem yi wax mu ne ko benn giléem bi moo ni morom mi kee ma gis ñu koy yóbbu dana tukki tukki bu kenn mësta tukki danañ ko teg coono ñu mës a am waaye dana ci am ndam yoo xamante nit ku ñuul mësu ko am nit ku nit ku weex masu ko am. dëgg la nee na waaye beneen gileem bi de mbàkkee li mu ko tontu moo ma jaaxal mu ne ko lu mu wax mu ne ko beneen gileem bi da ne tey laa waaru tey laa mës a gis ay xar yu wombat gaynde ne dañ ko yóbbu sëñ Tuubaa ko Ibra Sarr Njaañ dellul ginnaaw gileem yooyu waxi gone rek la ñuy wax koy góor bi mu yéegee tund wi. ca kaw espèces yi bari toolu dugub ju ñor ñoo ko raw keroog ak seeni gawar ak seeni fetal waaye ndekete moom boobu am na armée boo xamante ne ordre la ñuy xaar benn malaaka rek xajut ci xajut xajut ci xajut xajut ci France nguuru France laa waxuma rek ñu ñëwoon mu wàcc ne damay yendu tubaab yi ne déet dañ ko doon jëli war a taal dëkk ba daje nañoo moom ci àll bi mel ne moom la ah nañ leen faat ñii mu àndal jël ko yóbbu mu leen dama yendu bi muy wàcc fas wi la ne mag ñi tàllal leen ma ñaanal leen ngeen dellu sëñ Amidou hmm? police bii laaj police bii léeg-léeg sax ñu bëgg a jëli benn benn braqueur wala benn malfaiteur toog ba yàgg ñu ne nañu woo for waaw mais keroog sëñ bi dane na ñëpp dellu moo ngile mu képp ci luy noyyi la àndal alhamdulilah ñëpp kenn fekkewut leneen li parce que dafa yendu ñuy ñibbi. Mhm. mu yendu ba ngoon tubaab yi ne ko nag takk jot na mu ne leen damay fanaan sëñ Abdou wax na ni bu ko daan nettali danaan kendal ga yàllaa ko sant waaye fanaan ga ci xadari sëñ tubaa la kendal ga moom yàllaa ko ko sant waaye fanaanu géewal nag ci xadaram la <laughs> ñu ne ko da ngay dem mu leen demuma damay damay fanaan ñu ne nañ ko gaw yóbbu ko ndax yomb na ci ñoom sëñ saam dégg nga nim koy nettalee teg nañ ko fi maag yow ba tey nee na dafa wulbati xar kanamam jublootu leen te booba ñi ngi ko gaw ñi ngi ko gaw gisul Cheikh Ibra gisul sëñ Mandumbee gisul sëñ gaawaan gisul kaan waaye mu toog ba yàgg nag sunu boroom mi dara tëwul bi mu jàngee juróom fukki basmala joxoñ jaww ji lañ gis nag la mu waxoon fële rek moo répété waat fii ndax fee dafa ne ilaa sirina xat saaloo maa xuyulihim wa faaxalaa ida minhum wa maaloo ilaa salam ca ca ca ca keroog montagne sainte dem naa fa waaye fii li doy dañoo toom yàgg rek tubaab yi gis espèces yi seen fas yi tàmbali di tuur ndox ba yàgg seen baqata yi génn ndax malaaka yi ñu jàkkaar loolu ndax boo leen xoolee ñun la jàkk nga ne leen jàkk ja xool jant bi moo gën a doy waar ñu toog ab tu ab diir damay tënk rek ndax man damaa seetaan si woon séddale si woon kafe <laughs> gaa yaa ngi jàmbaari sëñ Tuubaa yaa ngi sëñ Ablaay murid ji bég nañ ci yéen ab diir lañ toog ba yàgg nag ñoom ñu daal di nelaw ñuy tëdd ci seeni fas mu ne ca lam doon ne ba bës set waaw dégg naa sëñ euh, sëñ maam Aminta Amar nee na bu leen ko daan nettali moom da koo ñoroon léeg-léeg nga gis kuy contesté yoonu géej gi jàngi mm. ñetti téere ñëw naan nañ bàyyi yoonu géej gi buñ ko bàyyee ci lu ñuy jàpp màggal gi mooy yoonu géej gi te man buñ ko bàyyee rek man musiba dal ma ndax man loolu rek laa xam man man parce que boobu laay fubal bawuma ko mooy monsieur attaquant bi <laughs> da koo ñoroon daf daan woo mag ñi di leen wax kaay leen ma wax leen yoonu géej gi dégg naa ni sëñ Ablaye Jaxumpa mi ngi may dégg mm. nee na sëñ Basiiru la sëñ la sëñ Tuubaa woo ak sëñ Fàllu ak Seex Mustafaa al Karim di leen nettali tukki géej gi di leen ko nettali di leen ko nettali ba lamp photophore bi nu taal rangoo ñu Seex Mustafaa moo ko fay ci mettital loolu lañ wax ne nañ ko bàyyi te ñuy nettali xare Badar bërki démb ñu lay wax jaasig Seydina Alioune bi di la wax di la di la wax yooyu ngay d'accord léegi nañ sëñ Tuubaa def loo xamante ne amul am Alioune mu dem amul Omar mu dem menn moom képp def fi loo xam ne kenn mësu koo def noonu lañ ko bay murit yi nañ jàpp yoonu géej gi mooy màggal gi mooy lépp suñu am dun ci ran toog ba yàgg nee nañ suñ soxna Aminta Amar nee na bu ko sëñ Tuubaa daan nettali loolu maa ngi ko nango sëñ Maxtaar nga xam ne te ni mooy ab sëtam nee na bu ko sëñ Tuubaa daan nettali day toom yaa daal ne ak noo ragal bi ñu gisee lu ahlu badrin daal danoo ragal ragal ragal ba nga xam ni tubaab yee ragal <laughs>